ñoo ngi leen di dalal seen chaîne YouTube Mas Agri di waxtaan ak yéen ci jataay yu xam-xam bi tudd yéete ñoo ngi ànd seen émission bi ak Assol bi nga xam ni mooy seen partenaire leader bi indi engrais yeeg engrais granulé engrais foliaire yu baax yi ci réew mi. maa ngi tudd Mohamed Seck di liggéey entreprise boobu ñuy wax Mas Agri. waxtaan bi nu bëgg séq mi ngi jëm ci leer gi nga xam ne mi ngi jóge ci naaj bi wala làmp yi ñu def ci seer yi ban njeexital la am ci màggum gàncax gi garab yi soo leen fàttalikoo ci vidéo bi nga xam ne jàll na fi fan yee ñu weesu gisoon nañ ni gàncax gi pour mu màgg faw mu am leer gu doy goo xam ne lëndëmul goo xam ne tar na wante diggu dóomu na te yàgg na ba gàncax gi mën ko jëfandikoo ngir toxal leer googu ci naaj bi ñëw dékku ko mën ci liggéey génne ci suukar si ak yeneen xeetu ferñeent yu mel ni dioxyde de carbone ngir mën a dund ci màgg ci aar boppam kooku leeraloon nañ ko ci vidéo boobu ñu defoon ci photosynthèse leeral leen nañ leen ni leer googu am na fu muy toll gàncax gi dina ko mën a jëfandikoo bu baax màgg ci wante su ko weesoo rek njëriñam dootul bare ci gàncax gi ndax dootul yokk photosynthèse bi ba sax mën na ko lor ca chloroplaste yooyu ñu doon waxtaanee nga xam ne ñoo nekk ci xob yi tey nag leer gi moom la bëgg waxtaanee leer googu mën nañ ko xayma ni ñuy xayma li ñuy peese moom nag suñ koy xayma day nekk ci dix ba deux mille huit cent nanomètres soo koy wax ci wolof mooy fukk. ba ñaari junneeg juróom-ñetti téeméer ci nanomètre bu ko defee loolu mën nañ ko xaaj ñetti xaaj am na leer goo xam ne ultraviolet lañ koy wax ak leer goo xam ne rayonnement visible mooy bi nga xam ne ñun suñuy bët ñun nit mën nañ ko gis ak beneen leer gu ñuy woowee rayonnement infrarouge dinañ dikk ci yooyu yëpp leer bi gën a suufee mooy leer bi ñuy woowee infrarouge bi ci topp mooy leer bi nga xam ni ci la ñuy gisee ñun ñu naan kat rayonnement visible bi nga xam ne ci la ñuy mën a gis lu ne ni mu demee couleur yeeg forme yeeg lépp ak bi nga xam ne nag bi gën a kawe moom la ñuy woowee rayonnement ultraviolet leer googu nag am nay njeexital ci sunu dund ñun te parfois sax mën nañu lor rayonnement bi maanaam leer gi nga xam ni suñ ci nekkee ñun dinañ mën a gis euh, ak sunuy bët boobu tamit mën nañ koo xaaj ay xaaj yu bare bu ko defee ci biir foofu am na couleur violet bleu vert jaune orange ak rouge bu nekk nag ak njeexital bi muy am ci gàncax gi leer gi gën a suufee mooy bi ñu doon wax lumière ultraviolet moom nag am na njeexital ci gàncax gi ndax day fekk leer gu suufee ba nga xam ni photosynthèse du mën a am bu ko defee gàncax gi màggam day suufee te tamit du fu du génnee fleur su génnee fleur nag du jur garab gee li muy mën a def moom mooy tàllal dundam c'est-à-dire di màgg dàtt bi di màgg xob yi di màgg wante du jur leer gi ci topp nag mooy lumière bleue boobu nag mooy bi nga xam ni ci la photosynthèse bi di gën a am doole bu ko defee soo nekkee ci lumière boobu noonu gàncax gi màggam day baax ci dàtt bi ak ci xob yi te baax na trop ci jamono ji nga xam ni yaa ngi soog am di suul jiw gi gàncax gu ndaw gi màggam danga koy gis day gaaw te du tax dàtt bi sew te gudd day yem tollu forme bi nga xam ne mooy gën ci moom. rouge nag moom nag moo ëpp doole ci màggaayu xob yi te xob nag moom foo ko gis ci gàncax rek moom dooma ci topp bu ko defee moom dina dooleel gàncax gi ba nga xam ne dàtt bi dina màgg màgg bu baax. reen yi taxaw bu baax nga xam ne gàncax gi moom lu mu mën a jur rek dina ko jur te du du ko sonal du ko dam am na beneen xeetu leer gu xonq boobu nag moo gën sore moom la ñuy woowee lumière rouge lointaine moom nag njëriñam mooy day puus gàncax gi ba nga xam ni date bi day màgg-màgg bu jëmee kaw bu ko defee tamit dina jëriñ gàncax gi ba nga xam ni dina mën a génne fleur su génnee fleur nag dooma ci topp wante ci gàncax yi nga xam ni ñoom faw ñu nekk ci bés yoo xam ne naaj bi li muy génn day yàgg lool ñu naan ko wooyee jour long kooku tamit dinañ ñëwaat léegi ci kanam ñaari leer yu xonq yooyu nag liy dox seen diggante mooy gàncax yi nga xam ne dañoo ronu ci suufu garab yu mag ñoom soo seetloo màgg gi niy soxla day laaj ñu dem jëli ji leer gu xonq bu sore bi ñu naan que lumière rouge lointaine ndax moo koy jëriñ ngir mu mën a génn ci fi nga xam ni euh, ker gi nga xam ni mi ngi koy muur ba nga xam ni du mën a jot ci naaj bi di mën a def photosynthèse bu ko defee da ngay seetlu gàncax boobu datt bi day sew wante day màgg jëm kaw di wuti naaj bi fu mu gën a nekkee ngir jàkkaarloog moom. yii nag xeetu xam-xam la yoo xam ni ñu ngi koy jëfandikoo surtout ci ñi nga xam ni dañuy liggéey ci serre. te ñu xam ni ñoom bëggatuñu naaj bi xatal leen ci liggéey bi nu bëgg def bu ko defee dañuy dem tànn ay xeetu làmp yoo xam ne ñoom ñoo leen di jox leer gi nu soxla ba nga xam ni dinañ mën a contrôler li nu bëgg ci màggaayu garab gi suñu bëggee mu màgg te saw ñu am xeetu làmp bu nu jël suñu bëggee gàncax gi tey jàpp ni moom mu ngi ci période bi nga xam ne mooy bu baax bi ndax leer gi yàgg na ak moom photosynthèse mën a am ñu tànnal ko ko bu demee noonu wala suñ ko bëggee yéexal tamit yéexal ko xeetu làmp yooyu nag mën nañ leen ci limal am na xeetu làmp bu naan làmp à incandescence lampe fluorescente lampe à sodium a pression élevée lampe à aux halogénures diode électroluminescent juróomi xeetu làmp yooyu nag bu nekk ak xeetu leer gi ngay indi ak longueur d'onde bi nga xam ne ci lay daw bu ko defee boobu moom beneen dossier spécial la wante daal bëgguñ ci xóotul torop mais daal nan ci bàyyi xel ñu xam ni même suñu nekkee foo xam ni naaj wi day teel a dugg wala day guddee dugg bu ko defee dinañ mën a toppandoo loolu ci biir seer yi seetul na ni ci biir at mi naaj bi am na jamono yoo xam ni li muy feeñ dina bare ak jamono yoo xam ni li muy feeñ day gàtt ngay seetlu di timis bi day yéeg ak di wàcc loolu nag dafa am njeexital ci gàncax gi màggam gàncax yi nag mën na leen xaaj ñetti xaaj gàncax yoo xam ne dinañ am doom ci bis yu nu jàpp ne bis yu gàtt la yoo xam ne naaj bi li muy génn du weesu fukki waxtu su weesoo fukki waxtu rek xeetu gàncax yooyu nag dootul jurati dañuy màgg noonu rek yor dat ak xob wante duñu joxe doom yooyu mën nañ ci lim gàncax goog ju naan poivron batance naajo euh, yenn xeetu ñebbe yi concombre ak mboq am na yeneen xeetu gàncax yoo xam ni seen jur mi ngi tollook bis yoo xam ni naaj bi li muy génn day toll ci diggante fukki waxtu ak ñeent ba fukki waxtu juróom benn yooyu gàncax nag su fekkee naaj bi mi ngi génn lu ko gën a gàtt rek du jur bu ko defee moom tamit day joxe eh, xob ak dàtt rek wante du joxe doom yooyu ci yooyu mën na lim gàncax yooyu ñu naan chou chou pommé bi nga xam ne xeetu na eh, kii la xeetu navet la ak salaat am na yeneen xeetu gàncax yoo xam ne nag seen jur ajuwul ci naaj bi ndegam ci bis bu gudd la nekk wala bis bu gàtt la nekk moom daal dina jur ak nu mu mënti demee ci at mi jamono joo ko indee rek mën na jur ci loolu mën nañ eh, lim gàncax googu jun naan tamaate am na xeetu concombre ak xeetu eh, ñebbe ak yeneen gàncax yoo xam ni mel na noonu gëstukat yi nag gis nañ ni am na gàncax yoo xam ni day laaj benn jamono ñu nekk ci ay bis yu gàtt ak yeneen jamono yoo xam ne dañuy nekk ci bis yu gudd ngir ñu jur te am na yeneen yoo xam ne nag dañoo dañu dañu weesaloo maanaam faw ñu nekk ci ay bis yu gudd toftal ci ay bis yu gàtt balaa ñuy mën a jur xeetu variété yu mujj ci mbayum dërmeeg ak yeneen xeetu bay sax boroom xam-xam yi ñu ngi defi pexe ba nga xam ni variété yooyu naaj bi feeñam gi mu gudd mu gàtt dootul am njeexital bu foor loolu ci jur gi wante daal baykat moom war na saa suy jënd jiw mu vérifier seet ndegam variété boobu nga xam ni bëgg na ko liggéey nangu na bis yi nga xam ni ci nga ko bëgg liggéey bu ko defee nga tànn bi nga xam ne moo gën a méngoog yow sa liggéey fi mu toll ñu daaneel ci ni leer gi jóge ci naaj bi wala ci làmp yi ak xeetu couleur yi nga xam ne moom lay àndal njeexital gi ni am ci gàncax gi mooy photosynthèse photosynthèse boobu nag ci la gàncax gi di sukkandikoo ngir amal li muy dundee ak ngir màgg te couleur bu nekk ak jamono ju nekk ak bés yi muy tollool dina am njeexital ci génne fleur ak jur gi bu ko defee faw ñuy bàyyi xel leer gi nga xam ne ñi ngi am ci gàncax gi ngir gën a mën a adapté li nga xam ne moom lañuy liggéey ndax dina am njeexital ca irrigation bi dina am njeexital ci yeneen pàcc ci mbay mi loolu tamit dinañ ko gis ci yeneen vidéo yi ci topp jërë ngeen jëf